murtajan minnatun lana jariun aousubillah min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ceen ñaan di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy topp ci internet bi rawatina ci sunu émission bi benn ñu dëppoo ak ñoom xalaat ci li ñuy wax ñu rafetlu ko ak ñi nga xam ne wuute nañ ay xalaat tamit ñu ngi leen di respecté di leen fonk bu baax a baax ci loolu nga xam ne mooy seen wii di ñaan yàlla defal nu jàmm ñëpp te yàlla defal nu ci njariñ wax ji yàlla bu mu neen yàlla bu mu doon wax joo xamante nii tamit day doon rek wax ñuy sànni noonu ci ngelaw li waaye yàlla nañ ci jariñu te jariñ ci ñi nga xam ne ñu ngi koy dégg tey xanaa dañuy sofaat ci fi nga xam ne fi lan waxe woon fan yii rek ci wàllu war may Touba xam ngeen ne waxoon nan fi li taxoon ñu waxoon ci tamit mooy xew-xew boobu fi amoon ci diggante tëgg ak fecc ak yooyu nga xamoon ne am na ñu ko doon def ci njaboot gi te yàlla dogal ñu baree baree bari ci taalibe yi ak ci jullit yi mettit ko ndax mbir dana rëy ngir ña koy def nanu tool noonu la dara yi lan koy defee toll mbirit dana rëy ngir barab bin ko defee barab booba rëyaay gi mu toll dana tax mbir ma rëy yooyu yëpp tase na ci nag mooy fi nu defee mbir mi muy Touba ci rëyaayam ci màggaayam ci diine tax na mbir mi rëy ñi ko doon defit bokk ci ñoo xamante ni foogewuñ leen ko woon tax na mbir ma gën a rëy nde boo delluwaatee fii rek am na ñoo xamante ni lii seen métier dëgg dëgg dëgg mooy fecc fecc fecc ak tëgg ñaari métier yooyu daanaka dañ ci xam nañ leen ci bu baax ci réew mi la tax nag mu indi coow mooy mbir mi dong ma wax mooy ñi ko def ak fin ko defee béréb yooyu rek moo rëyeel mbir mi. waaye dafa am yeneen sew-sew yu ci nekkaat yoo xam moo gën a rëy ñu gis ne ñu ngi koy def te yooye nit ñi itte woowun te lislaam wax li muy wax ci yooye la gën a wax lu mel ni léttu mees lislaam da ko araamal ba nga xam ne jéggi na dayo yonante bi salaa salaam dane képp koo xamante ni yaa ngi yokk karaw ak ña la koy yokkal yàlla rëbb na la maanaam ñi koy def ki nga xam ne moo koy def ak ki koy defal ak béréb ban koy defee sax ki ko luye wala ki moom yàlla rëbb na ñooña rëbbam yàlla nag mooy dalay solal yërmandeem te yàlla lu wax ne daf laa rëbb rek def ko rëbb def caa rëbb loolu mooy sawara mooy ak mooy sa pay te gis nañ ne boo delluwaatoon ci nit ñi ñu ci baree bari xamuñu ne mees dafa araam yëgunu ne tamit ne loolu yàlla rëbb na ci wala yonante bi wax na ci waaye yi ñuy dégg ci kaw te bu delluwaatoon ci lislaam nag dañuy xam ne tëgg ak fecc eh, taxul mu am benn solo dëgg dëgg dëgg xanaa kaadaru borom xam-xam yi ñoo ko delloo ci ne am folo rek te yàlla dafa bindut nit ñi ngir ñu fo xañ na foofu lay delluwaat waaye du lu uh, dëgg-dëgg àgg ca dayo araam baag uh, kii ak yooyu waaye bu ñu delluwaatee ci dëgg-dëgg nag ci bind yàlla bi mu waxee ne wa maa xalaxtul jinna wal insa illaa liyabudoon da ngay xam ne kon yàlla folowunu te yàlla wax na ne doomu adama yi su fekkoon dama leen bindoon ngir fo rek damaa bindoon àdduna bi ngir fo kon nit ñi ñoom duñ ci bokk ñoom ndax ñoom amunu kàttan te it soxlawuma leen kon am naa ñeneen ñoom ñoo leen dàqa fo gën leen koo man kon loolu moo tax bu nu seetloo fii ci dëkk bi gis nañ ne létt ay salon kër yoo xamante ni ay salon lan ko luyee béréb yooyu béréb bu ñuy létti ak di létt ay mees amul wenn sant wu fa du dugg nag wu du dugg ci béréb yooyu di létt di teg mees kon li muy wane la mooy ñëpp koy defandoo bu ko ñëpp doon defandoo ak sant wu mën di doon ñëpp di ko defandoo taxul mu dagan yàlla lim araamal moom araamal na ko te fale ñu jëm ëllëg yomal xiyaam biir bàmmeel yàlla xamu foo sant xam nga lu mu fa xam jëf jëf ju sell te sun borom bu waxee ne inna akramakum indallahi atxaakum kon day wane ne ki gën a ragal yàlla ci nit ñi mooy ki gën a tedd rek tedd nga moom amul fenn fu ko mën a lu dul ki la gën a sàmm gën laa ragal yàlla moo la ko gën a def moom la tedd ngay dem du ci nit ku ñuul du ci nit ku weex amul ci tedd nga fu koy fu koy classé lu dul ci ragal yàlla kon nag ku la gën a ragal yàlla ku lay wax ne la diw fii laa bokk yow xante woo ragal yàlla am na ko mas dikk ci ku baax ke di ko wax de ñu ne danoo bari xam lool di ko ndamoo ah, ñun de leen xam bariwut waaye ñu ngi ko bëgg a jëfee ñu ngi ne siiw ngir jëfe ko kon li muy wane mooy xam lu mu bari te jëfe ko amul benn kii benn bi ci des fii ci dëkk bi di nga gis ñoo xamante nii dañuy yett ay mbir yoo xam ne dañ koy yett wutaluñ ko ruu nga xam ne ci wàllu ay istati lay delluwaat te istati ku nekk xam ne dafa araam te boo diggee fii di nga gis ne da ko fii gis yenn saay boo demee ci palaasu téer yi nga xam ne la ñaw lu ko gën a rafet lu ko gën a ñàkk sutura kenn xamul nu mu toll nga xam ne loolu buñ leen doon fay lu bari di leen wax génne leen ko réew mi sax solewuñ ko ci réew mi sax teggin yooyu waroon nañ koo warmaal yàqu-yàqu nag dafay àgg ci jamono boo xamante ni kenn xamatul na ko ndax parce que la ko def boo xoolee fi ñu toll dañ doon wax ne théâtre yi ciné cinéma ak télévision yi dañoo interdit woon ku amul dix-huit ans doo ko doo doo doo dugg seetaan film yooyu léegi ñu dem ba jamono dix-huit ans amatoo dix-huit ans waaye mën ngaa seetaan lool ndax ay portable a ngi ci seen loxo yoo xam ne loo gën a rafle la nga daan bañ yeneen yi télévision yi dafa ubbeeku mel ni géttu bëy kenn amul ku ko contrôler programme yu bon yu ñaaw ñoo ciy nekk muy àgg fu nekk foo mën a nekk mu àgg fa am na benn waaye nag bi ko laajee ne ko waaw lu tax bu njëkk dañ daan aaye ku amul 18 ans doo seetaan yu mel ni mu ne ko ña ko daan aaye léegi ñan ko daan aaye ña amoon 18 ans léegi ñoo yore mbir yi ñoom maanaam ñi yore woon si ña nga xam ne ñoom lan ko daan aaye léegi ñoo yore système bi maanaam ñi nga xam ne 18 ans lan amoon di ko seetaan ñoom booba ñu koy seetaan léegi nag ñoo yore mbir yi mbir yi seen loxo lay doxe moo tax ñoom seetaanu aayootuñ ko bu ko defee euh, fii rek ci jombante ak dëkk bi li ma waxoon mbir mu nekk day rëy wallaahi la sim am na ci taalibe yoo xamante nii ñaar nga xam ne seen pas-pas ci sëñ tubaa ak seen pas-pas ci diine bu seen soxna léttu woon mees jaral na ñu fase ko ñu tàggoog moom ñu tàggoo moom ci ay taalibe te laa wax ñoo xam seen soxna tey bu newoon dañuy léttu mees wala ñuy xeesal seen ab der ñoom jaral na leen ñàkk soxna soos te dara waralu ko lu seen pas-pas ci lislaam ak seen taalibe ci seen Sëriñ Tuubaa loolu nag ku nekk na ci natt sa bopp ba xam yow mbir moomu àgg nañ la foofu wala àggu foofu bu fekkee àgg na la foofu nga xam ne yaa ngi ci yoon wi su fekkee àggu foofu nga nga vérifié waat sa bopp ndax moteur bu nekk oto bu nekk moteur bi day am pièces yu ci paan yoo xamante nit ñi na nga fa mel ni seen pièces yi moteur yi seen biir bi moteur yi ci nekk dafa mel ni dafa am lu ci paan seen xol yi dafa mel ni xol yoo xamante ni dafa tas dañ koo kaste ba kenn mënatu cee dugal dara lu baax dara ni nga xam ne doona wax ne yej bi nga xam ne dañ ko bëttagul loo ci sotti ci ndox day wàccaat dara du ko mën a téye kon léegi mbir yëpp na ko nit ki natte noonu ci lislaam lislaam li muy tegle bu fekkoon sa nitu bopp sa mbirum bopp donc la lislaam gardeloo kon amul problème yonente bi salaa salaam du sonn sëñ tubaa du sonn kenn du sonnaat ci lislaam ndax ku nekk xam na ne lislaam li ko indi fii mooy li ko fi indi ay nit ñoo xamante ni dañ doon rawale seen diine maanaam bokk na sax li dugal lislaam Sénégal mooy ñoo xamante ni ay commerçant la noonu xam ñoo ñoo dugal lislaam nit koo xamante ni da nga daan jaay boo jaayee nit dem bu ca suba gaa nga xëy ñëw ne ah man de ki may doon jaay fii laay wër ndax parce que bi ma ko jaayee lam la ma ko delloo dafa am lu ca manqué moo tax ma bëgg ko weccet woo ma kii dama ko am loo xamante ni dafa ëpp loola laa ko bëgg a delloo si loola def jeexital nit ka nga koy def dikk na la ah ñun de ñun fii nga xam ne ñun dañuy fekk nit mu tëdd ñu rey ko jël alalam fekk nit kuy dox ñu kar ko jël alalam yow nga dikk kii delloo la lu ëpp yow nga amoon looy def nga dikkaat dikk ko delloowaat yow ci jën diine nga nekk mu ne la diiney lislaam ñu baree bari ci fi façon boobu ci leen duggee ci lislaam léegi bu nu mënee àgg nag ba ñi nga xam ne ñoo war a yore diine ja walla nit koo xamante ni ak foo xam ne bu diine amoon problème yuuxoom gépp li wolof yi wax nit ku nekk euh, boo wallu boo bëggee ku la wallu fa ngay yuuxu jëmale mooy fa nga yaakaare wallu jàpp naa ne lislaam moom ku koy protéger ak ku ko bëgg a daane nag ku ko bëgg a ŋàññi tamit Touba ngay ngay mooy sa bis bi nag wi nga xam ne boo ko daaneelee rek daaneel nga fépp waaw prom xam-xam dañ wax ne diggante nit maanaam xale yu ndaw yi ak jigéen ñi ku fexe ba nga occupé xale yooyu nga daane leen nga am ci li nga bëgg am resir nga ci li nga doon wut lépp ci lislaam maanaam li nga bëggoon a yàq lépp def nga xale yu ndaw yi ak xale yi ak jigéen ñi jeex na li ci des mooy amut solo kon loolu li muy tekki mooy dëkk bi dëkk Sëñ Tuubaa la boo xamante ni ñun ñu fi dikk ñëpp rawale suñ diine ak xam ne amuñu ko bu fekkoon tëgg ak sabar la ñun ñi ñëpp suñuy cosaan kenn mësu ko faa aaye suñuy penc amu ko woon suñuy penc yooyu am na ci ñoo xam seen i penc loolu moo doonoon seen aada waaye bi ñu demee ba xàmmee ci lan xam ne kat Sëñ Tuubaa ndekete amul moroom ndekete moom mooy mu jaddit bu mag bi nga xam ne ku ko topp di nga gindeeku fii ci àdduna te da nga gindeeku àllaaxira boo gisee yonante bi salaa salaam wala addis bi wax ne xu anfusakum wa ahlikum naara mooy na ngeen moytu sawara moytu ko seen ñun yonante bi danaan woo faatu bint mi nga xam ne doomam ne ko faatu bintu loo bëgg sama tàndar ma jëlal abbas loo bëgg ci sama alal wax ma ko am sa loo bëgg nag ma ko wax waaye fële di yombal xiyaam de wenn lay mënu leen ma ko wax defal ludut ngeen di julli topp lislaam mooy mënalu leen foofu dara la leen bëgg wax da leen a bëgg wax ne leen responsabilité bi mu amag ak yéen mooy digal leen ko fi kon nit ku nekk na jéem a tàmbalee ca wewu tànkam mu bay fa te xam ne lu nekk day màgge foofu bàkkaar bi nga defee Touba moo gën a màgg fuuf bàkkaar bi nga defee feneen bàkkaar bi nga defee màkkatal mu karama moo gën a màgg fuuf bi nga defee feneen li ko waral mooy béréb yi la suñ borom gën a teral te nii suñ borom gën a teral bërëb yi ni la ko teral wala laaxiratu ak bara darajaat nit ku nekk daraja ëllëg daraja yi noonu lay gën a teddante moo tax dëkk bii di Touba ñu gën ci fàgguwaat bu baax a baax war ma ku ci nekk nga jéem a defar sa bopp ci sa condition defar sa bopp nag du ci yow rek la yem waaye li aju ci say doom aju ci sa njaboot jàpp naa ne teraanga ji nu sëñ Touba yi day yenkeewal ba àdduna sosoo ba léegi teraanga ju mel ni amut teraanga joo xamante ni doo sonn ba noppi di jariñu ba noppi lu nekk mu fekk la ca fa nga fa gën a tëlee fa la tàmbaleeg yow mooy nit ku nekk Sëñ tubaa sagal la sécurité boo demoon ci yeneen dëkk yi nii dëkk bi bindoo ak ni mu mel xam nga ne kaaraangeeg Sëñ tubaa rek moo fi tàbbi waaye du lu nit di programme di nang dëkk bi nga xam ne moo gën a ñàkk kii bu fekkoon dañuy wax ne dëkk la boo xamante ni ak xam ci wàllu àdduna lépp jox nan ko ko dañuy wax ne foo jaar mën ngaa gis ne sécurité dafay am. waaye xam ngeen ne àq jooju amul xaaju fee ñëw waaye loola lépp secret sëñ Tuubaa boo tëddee am na ci ñoo xamante ni néeg yi ñuy dëkk ak fa ñuy nekk di fa tëdd ak fan dëkk danga naa fii nit waru fee mën a dëkk rek nekk ci jàmmam waaye sa jàmm ju ña fa dëkk sax ñoo gën a nekk ñi nga xam ne dañoo yor ay état ak ñoo gën a nekk di ci jàmm te jàpp naa ne teral sëñ tubaa ak delloo ko mënul mukk mukk mukk mukk mënoo waar nit ñi ak wax leen ko ba delluwaatoo ci alxuraan ak sunna am na ñoo xam seen tabax yu rafet yi seen oto yi am na sëñ bi tabax bu rafet oto ak jongama ju rafet nga bëgg loolu lépp nga delloowaat ko sëñ tubaa sëñ Tuubaa lan la ci am sëñ Tuubaa kay da nga naa sama daara ji li ma mokkalal ci alxuraan li ma tabax di def ci daara loolu delloowaatal jëf ci sëñ tubaa ndax jëfi sëñ Tuubaa la ak yéenam waaye ay tabax yu rafet ay oto yu rafet ay soxna yu rafet nga ne sëñ tubaa damaa teral déedéet loolu du teraanga de loolu tubaab bi am na ko loolu am nattu la bu dal ci sa kaw boo xamante ni da ko war a tiit sax waaye lii teraanga mooy saa boo xëyee xëy ci alxuraan boo gonto gont ci alxuraan sa njaboot gépp nekk ci alxuraan nga kii ko am na ci ñoo xamante ni waxuma la euh, teral waaye ñi nga xam ne ñoo féetewoo méngoowoo loolu pour jàngale ak jàng problème yi niy jànkoonteel te dañuy toog di xalaat ba ñoom nawet bii ñu toll rek am na ci ñoo xamante ni leer na ma ne lay seen xalaat seen mébét bu ñaanu bu sañoon du taw ndax leer na ma bu ñuy taw seenam jàngale di yàqu ndax mbaar yéen yi jàngale néeg yi seen senn lépp day senn te loolu wax nañ dëgg ndax parce que suñu tool borom xam-xam yi wax ne nawet bu gàntu moo gën borom xam-xam bu dem. ndax nawet bu gàntoo yàlla mi la bindoon dana la wut lum la def te borom xam-xam bu demee moom xam-xam day taxaw firee new kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii daf ñu koy toftal ca lan doon wax rek waaye yii mooy yi gën a màgg nag yi ñuy jalgati ci lislaam te lislaam àddu ci moo gën fuuf yi nga xam ne nag lislaam waxu ci lu bari nag da cee maandu wala maanduwu ci sax waaye daf cee jàjjee rek wane ne baaxut waaye yii moom daf cee tëkkoo dële ci yooye nag moo gën a kii tamit la nit ñi yi islaam woyofal yooyu lañ gën a rëyal ci cib tere moom lañ gën a rëyal ci aaye te yi gën a rëy mooy ñuy def tey bu fekkoon ne ku nekk mën ngaa waat yàlla ni taalibe boobu nga xam ne ku léttu këram mees wala nga euh, xeesal fa mu wàcc la bu fekkoon dison boobu noonu la ñëpp mel kon yàpp naa ne lu bari dana baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci baax yàlla la lu ci dëng ñu xam ne sunu néew xam-xam ak sunu kii Seexuna ak Moussa ñoo nekkoon ci cameraman bi soxna Awa moo réalisé émission bi ki nga xam ne moo ko doon monté mooy soxna Khady Niang wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu murtajan minnatun lana jariun